ngir bañ a guddal rek li ci ëppoon ci wax ji sëñ Ibrahima wax na ko xanaa dañuy daal di jublu rek ci li nga xam ne mu waral jotaay bi muy waxtaan wi waxtaan wi nag ngir ak fàttalante ci suñu biir ñu ciy ànd ak sëriñ Ahmadou suñu seex na wax na ko waaye yaakaar naa sëñ Ahmadou jëru fee jëru fee wax ndax liggéey bi ñu seq di ko def ñu nag ñoo ma ko bokk ñu nag moo ko bokk te fii mu nekk it yaakaar naa kenn du fi wax mooy kan kon li may wax rek mooy jëmmi waxtaan wi nga xam ne war na koo def insha allah ñu koy ñaanal borom bi defal ko ci tawféex ba mboolem lu ci bëgg a leeral rek mu leeral ko te itam yàlla defal ñu tawféex ñu nit ñu mën ca jariñ kon bu ko defee thème bi bi nga xamante ne mbooloo mi waxtaan nañ ci ci biir ñi nga xam ne ñoo jiite lajna saqafiya bi ci lañ ñu tànn. alcheikhul xadim wal quraanil karim ñu waxtaan ceeg moom mu doon it lu ko jub lool ànd ci ak positif lool itam bu ko defee itam mu doon lu yaatoo yaatoo yaatu xam ngeen ne mënoon na mënees na cee def ay waxtuy waxtu te du tax loolu jeex te du taxit mu mat waaye nag mu tànn ci itam noo xam ne noonu la ko bëgg a waxtaan ak ñun incha allah dana def taariful quraanil karim day njëkkee bu jàllee wax fadailul quraanil karim bu jàllee mu wax asheikhul xadim wal quraanil karim loolu nag mbokk yi nañ ko teew teewlu bu baax a baax ndax nañu xam ne murid bi ndigal la jot lu bàyyi ko ci cheikhul xadim ci fonk alquran ak toppatoo ko ak di ko jàng rawatina waxtu wu nekk ndax walaazimu tilaawatal quraani fi layli wan nahaari bil imkaani kon loolu ndigal la te murid moom ndigal rek ak kullu muridin bi yaluuzu fal yudim tilaawatan li xayri dikrin xadru seen bi itam leeral ñu lu bare bari li ñuy wut ci àdduna ci alquran lañ ko mën a ame moom itam jàpp gi mu jàppe alquran mu doon li nga xam ne moo koy faj bu tawatee mooy soppeem mooy xaritam bi koy wettali mooy soppeem bi nga xam ni itam moom lay déyaaleel dem na ba wax ne moom rekk sax mooy sama werd kon teg na ko fu kawee kawe tey it jox nañu ndigal ngir ñu fekk si ko foofu mu ko teg bu ko defee itam wax ne kanzil kitaabu wal xadiis wal adab laa jamu fiddatin wala jamu dahab kon daal jox na nañu ndigal ngir ñu fonkal ko alquran ngir ñu jàpp ko te ngir ñu sàmm ko bu baax a baax def ko nam ñu ko dégalee kon ñu ñaan mbokk yi fi teew yépp rek ñu maase ci teewloo ko ak noppi xel te bañ koo teewloo ak noppi bopp te ñaanal sëriñ bi yàlla defal ko tawfeex wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi kilifa bërëb bi te muy sëñ Maxtaar moom Cheikh Mahmoudan Koso ñu ñaan yàlla yàggal ko fi lool te may ko wér ba liggéey yi mu sumb ngir liggéeyal ko diine ji liggéeyal ko sëriñ bu mag bi yàlla def na ko ci taw ba mu àggale ko ak jàmm ci daraja Sëriñ Tuubaa di ziar bu baax itam suñu mbokk yi ci bi yëpp buñ ci tuddee sëñ maam Thierno moom sëñ maam Mor ñu ngi ñaan yàlla yokk ko leer dana doy sëkk mu mën koo àggale ci mboolem mbokk yépp ni ko sëñ bi waxe léegi waxtaan wi dañ koy jëmale ci xat yi mu wal quraanul karim waaye dañuy jiital al quraanul karim ni ko sëñ Muhammad waxe lan mooy al quraanul karim ñaareel ba jan daraja la am ban wàccuwaay la am lan mooy ay eh, njariñam ak ay tuyaabaam doo ko ñëw nag ci sëñ bi ni mu ko dundee insha allahu taala kem li waxtu yu may rek xam ngeen ne alquran suñ ko waxee boroom xam-xam yi buñ koy jàngale dañuy dañ koy wala ñuy wax ni huwa lafdul arabiyu al الموحى به إلى محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته والواصل إلينا عن طريق التواتر loolu mooy ni ñuy xam ne alquran mooy ay baat la yoo xam ne ci làkku arab la wàcc di wax ju lottal ñépp kenn mënta wax lu ni mel ñu wàccee woon ko ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te muy wax joo xam ni boo koy jàng yaa ngi jaamu yàlla te yoon yi mu jaar ba agsi ci noonu yoonu tawaatur la loolu mooy lan mooy alquran loolu nag xam le la boo xam ni ajana faram-fàcce ajana leeral ñeenti mbir a ngi ci yoo xam ne bu ci ne danañ ci taxaw ci lu gàtt bu ñu waxee ne alquran dafa lootal ñépp te ñu wàcce woon ko sayyidina muhammad te boo ko jàng yaa ngi jaamu yàlla te yoon càllale yi mu jaar ba agsi ci noonu dafa am tawaatur loolu yu bari dañuy génn xadiisu yonte bi day génn ndax xadiisu yonte bi lottal gi alquran lottal nit ñi ba kenn mënta indi lu nu mel xadiis yonte bi melut noonu agul foofu bu ñu waxee ne dafa ñëw ci tawaatur xiraat saada yi day génn mooy am na anam yu ñuy jàngee alxuraan yoo xam ni boo doon julli boo ko jàngee si julli baaxul ndax anam ya mu jaar ba agsi ci noonu du tawaatur dañ leeral léegi lan mooy tawaatur insha allahu taala bu ñu waxee itam xam ne bi ma wax léegi xadisu qudsi yu day génn xadisu qudsi yu maanaam yi yàlla sunu borom tabaraka wa taala moo ko wax waaye baat yi ci rasulullahi la jógee foofu la wute alxuraan alxuraan moom maanaa yeeg baat yépp dafa wàcc ci yonente bi jóge ci suñu borom tabaraka wa ba tey tra traduction yi day génn ndax traduction ki traduire euh, alxuraan ji ay baatam day indi te baat yooyu wute nag ya wàccoon kon moo tax xam ne bi am solo fi ñuy njëkk a taxaw mooy dañ koo wax yu yonente bi sallallahu alayhi wa muy lu am solo tam ñoo xam ne alxuraan wax yu la du ay xalaat du loo xam ne yonent bi ay waxi boppam la lu ko génn la ni mu nettalee ni ko wax yu gi dikkee dañ ciy dégg ne mbir mu ko génn la ñiy tuumaal lislaam ak di bëgg a xeex lislaam léeg-léeg dañuy tuumaal lislaam ji ak yonente bi ne mbirum boppam la moo xam ne da ko doon xalaat ba mu leer ci xelam rek mu génne ko waaye loolu sunu borom anam gi mu jaarale wax yu gi da ko wedd da anam goo xam ne mooy weddi loolu ndax yonente bi bis dafa toog ci xaaru xiraa jékki-jékki gis am madaayika moo xam ni keroog la ko njëkk a gis nee na mu ne ko jàngal mu ne ko man jàng du sama mbir mu ne ko waat jàngal mu ne ko jàng sama mbir ñëw yoonu ñetteel boobu ba mu ko ko waxee ci la ko malaayika mi xaw a gësam ba rasulullahi sonn ak coona mu doo ko wax ne ko iqra bismi rabbika alladi xalaq waxtu aay yi jëkk nga xam ne mooy jëkk wàcc ci alquran karim yonent bi dem këram ànd ak am tiit ndax xamut booba lii ko ñëwal lu doon soxna Xadija gis nañ sax mu ànd ak moom dem ci Waraqatu bnu Nawfal ngir jaaxle ndax xamutoon lan moo dikkat Rasulullah sallallahu alayhi yonent bi aay yi ginnaaw bi teewul alxuraan a ngi wàcc waaye am na diir boo xam ne dafa mujj wàccatul yonent bi gën a jaaxle waa Makka yéefar ya di ko euh, reetaan di ko wax ne ko yow sa yàlla ji dalaa bañ ndax ginnaaw da daan wàcce ci yow alxuraan te alxuraan ja wàccatut kon yàlla ja xëy na dafa dem ba jubloowutu la mu bàyyi la anam googu yi mu wàcce tiitaange googu nga xam ne moom la ci yonte bi tiit ak jaaxle googu ak li ko dikkal te mësu koo xam bu doon mbirum boppam yooyu du ci am te yonent bi mësu la mën a bind lu ñu jàng mësuta mën a bind itam dara bu tiimee am bind du ko xam ci njëkk ñuy wàcce ci moom euh, wax yu gi njëkk lislaam di ñëw booba bu tiimee mbind du ko xam loolu tegtal na ci ne alxuraan ji ak ni mu yéemee loolu mbirum suñu borom kese kese la war a doon loolu mooy xaaj bu njëkk bi mooy ñu xam ne lii lu wàcc ci yonante bi la lu ko génn la itam malaayika moo ñëw wax ak moom indil ko lu jóge ca suñu borom tabaraka ko taala alxuraan it bokk na ci lim ràññee ko dañ ko koy xamle mooy boo koy jàng yaa ngi jaamu yàlla baat yi xaraf woo jàng rek am nga tuyaabu juñ la bindal yonante bi nee na waxuma ne alif laam miim xarfu la waaye alifun xarfun wa miimun xarfun wa laamun xarfun wa miimun xarf xarf boo jàng rek am nga fukki tuyaabu yuñ la bindal julli itam moom kese lañ ci jàng julli gi boo ci jàngoon leneen lu dul alquran julli googu baaxul ak loolu lu màgg màgg mu ñëw itam ci tawaatur bi ma waxee tawaatur mooy mbooloo mu bare baree baree bari moo xam ne mosuñu xel nanguwut ñu mën a maase ci wax lu amut ñoo ko nekk li jëlee ko ci mbooloo mu bare baree baree bari ñu jëlee ko ci mbooloo mu baree baree bari ba ci rasulullahi sallallahu alayhi wa dinaa koy misaal ne tey buñ la waxoon ni nett li bi de Cheikh Abdourahman moo ko nett li jële ci Cheikh Abdul Quddus masalan wala sëñ Mahmoudan mii borom koso mu jële ci borom Daarul Muxti mu jële ci sëñ Tuubaa loolu ci ni ñuy natte ay nettali dañuy jàpp dañuy jàpp ne nettali bi nekkul tawaatur ndax ay benn benn nga ma wax ñooñu nag ñu wér lañ ñu maandu lañ ñu sàmm lañ ci ñu mën a takk lañ itam te mën a mokkal itam waaye loolu génnul li ñuy wax xadiisu waaxid xadiisul waaxid bu fekkee nag ku mel ne Cheikh Abdourahmane moom da ci am na ma téeméer yu mel ni moom kam jëlee woon muy sëñ Mahmoudam ci misaal nga nga am ci téeméer yu mel ni moom borom daru mañ jëlee ñu am nga am ci téeméer yu mel ni moom ñu jëlee Sëriñ Tuubaa loolu dañu jàpp ne ñun ñëpp loolu xadisu taw loolu la ñuy wax tawaatur mooy mbooloo moomu xel nanguwul ñu maase ci mën a juum wala wax loo xam ni euh, demewul nañ ko waxee alxuraan nag noonu la dikkee ay junni junni nit ñoo ko jëlee ci rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ay junni junni nit jëlee ko ci ñooñee ñuy saxaaba ya taabiroon yi ñoo ko jëlee ci taabiroon taabiin yi ba niñ ko bindee fekk sax ci jamonoy saxaaba ya lañ ko bind kon loolu mooy dafa ñëw ci anam goo xam ni mooy anam gi gën a wér ci li ñuy nettali ñeenteelu ni ñu koy xamlee mooy dafa lottal ñépp alxuraan mooy wax joo xam ni nit ñi mësuñoo gis lu ni mel làkk wi mu wàcc fii diggoo ko sax doo xam dayub alxuraan alxuraan mooy wax yoo xam ni arab yi dañ daa def ay way di def wesar waaye anam yi ñu daa waxee ci ci ci làkku arab yépp du ci benn du way du wesal wesal dafa am lu ñuy wax sajon ak irsal yooyu du ci benn du way itam muy wax yoo xam ni yéemu gi ak niñ ko ràbbalee ak neexaay bi foo ko takk weesu na ko kilifa yu mag yi gën a bañ yonente bi sallallahu abu jahlin ak al axnas ibnu shurayq ak ñi mel ne ñoom dañ daa bàyyi bu guddi ñu dem ca kaaba ga di diglu rasulullah sallallahu ngir ngir neexitu alxuraan bu fajaree kenn ku ne gis sa morom ñu ne lii kat buñ ko defati ndax kat ginnaaw nun ni nga koy xeex wax ne lim nekk du dëgg bu ñëwee di ko diglu xam nga loolu bu ko nit ñi yëgee du baax waaye ca ëllëg sa ñoom ñëpp ñu ñëwaat te yëgoo yëgantewuñ bañ ko defee ay yoon ci lañ wax ne nag lii nag moom nañ ko teg fi suuf ndax moom bu ko waa dëkk bi yëgee euh, caaf xam kon alxuraan noonu la bari na ci saxaaba ñoo xam ne benn ayib alxuraan la ñuy dégg rek mu dugal leen ci lislaam moom lañ cee wax ku mel ne Walid ibnu Mughira ku mel ne Utbatu ibnu Rabia ak ñeneen ak ñeneen waa Makka ci njëlbeen dañoo waxoon yonente bi ne ko dañoo bëgg nga indil ñu kiimaan xar baax goo xam ne day tegtal ne yow ab yonente nga suñu borom wax leen na leen xar gi ñëw na ba noppi te mooy téere bii ngeen tiim wa qaalu law laa unzila alayhi ayatu min rabbihi qul innama al ayatu inda allahi wa innama ana nadiru mubin awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dalika la rahmata wa dikra li qawmin yuminuna mooy yàlla da leen wax ne yéen xarbaax gi ngeen di laaj ñëw na ba noppi muy téere bii bii leen yónente bi waxee noonu dañ daa wax ne lii du xarbaax ndax noonu bu ñu neexoon nu wax lu ni mel qad sami'na law nashaa'u la qulna mithl law nashaa'u la qulna mithla hada waaye suñu borom défier leen xamal leen leen li jàpp ne noonu la yombe du yombe noonu ku ci mën a indi fukki saar na ko indi ñu toog diir bu yàgg kenn mënta indi fukki saar yu mel ne saar yi ne ci alxuraan suñu borom waxati leen ni benn saar rek ku ko ci mën na nga ko indi wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna nazzalna ala abdina faatu bi suratin min mithli wad'u shuhadaakum min dunillahi in kuntum sadiqina fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu nnaara allati waquduha annaasu walxijaara uiddat lil kafirin wax ne suñ borom ne leen su ngeen jàppee ne man ngeen ko indi leen benn saar bu mel ni alxuraan ji te xam naa ne loolu mënu leen ko te du ngeen ko def ba ilaa yu dini du ngeen ko mas a def nga taxaddi boobu te arab yi wax moo doon seen gàññal moo doon li gën a ci ñoom te taxul ñu man ko am na ñu doon jéem waaye lañ indi ay reetaan la lañ mujj ñëpp ñu leen di leen ci reetaan reetaanukaay la ci ñoom suñu borom yëmut ci loolu da leen wax ni waxuma la yéen waaye yéen ak nit yéen ak jinne yi su ngeen maasee ànd du ngeen mën a indi lu mel ni alxuraan qul la in ijtamaati linsu wal jinn ala an yaatu bi misli hada alqurani laa yaatuuna bi misli walaw kaana baaduhum li baadin zahira wax na leen ne waxuma la aw saar waaye benn aaya lenn ci li muy wax rek indi leen ko buñ ko mënee falyaatu bi xadiisin mislihi in kaanu saadiqin waaye loolu lépp taxul ñu man ko waaw mujj ñu ne lii ak njabar la alxuraan dañoo mujj ñu ne lii ak njabar la wa lamma jaahum alxaqu qaalu hada sihr wa inna bihi kaafiruuna ndax njabar gi mooy dafa neex ba ku ko déglu danga nga dugg ci lislaam waa Makka at yi jëkk ci yonente bi bi muy woote bi mu ko tàmbalee feeñal ci kaw dañoo mujjoon waxtaan ci seen biir ne ñi fiy ñëw di aj si nañ seet luñ leen wax ndax kat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ku toog moom bu dégloo li muy wax faw nga dugg ci diineem ji ñu dëppoo ci ne kon nañ leen wax ne day wax kàddu yoo xam ni day njabar nit ba teqalikoo ki bokkam ñu maase ci loolu dëkk ba ku ñëw rek ñu kar la ca buntu dëkk ba ne la kat am na fi jëmm yoo xam ni bul toog moom bul ko déglu am na ñoo xam ne bu ñu mësaa ñëw ci yoonte bi dañuy wut lu ñu sàkke seeni nopp ndax dañ leen a tiitloo ci ne boo ko digloo di nga teqalikoo say bopp ndax ak njabar la kon alquran dafa yéemu te itam li gën a yéemu mooy alquran dafa am day wax ay kumpa yoo xam ni jamono yam koy wax kenn xamutoon ba xam lii mën naa amam déet ñu dem ba teg ci bët loolu lu bare bare la al ijaazul xëy bi bokkut ak al ijaazul ilmi ba tey ijaazaat yu bari la man dañuy wax lu xaw jege ñaar fukki ijaaz al ijaazu ruuxi al ijaazu balaaxi al ijaazu bayaani al ijaazu taarixi al ijaaz muy muy dem ilmi ak xëy bi bokkuñu xëy bi mooy yi nga xam ne ay kumpa la nga xam ne alxuraan la ko wax wax ne mbir sàngam dana am jamono ja jamono dem ba loola amee na mu ko waxee ci misaal rek suñu borom bi perse yi xeexee ak romain yi te Perse yi gañee Romains yi borom dafa wàcce aaya wax ne alif laam miim xulibati ruumu fii àddina lardi wa hum min baadi gadabihim sa yaxlibuuna wax ne Romains yi gañe nañ leen waaye balaa yàgg danañ gañe fii bidai sinin fii ak ay ay at danañ gañewaat te booba Romains yi gañe nañ leen ba nangu seen suuf sépp ba ci capital bi naroon ko nangu nga xam ne booba kenn mënutoon a jàpp ne loolu mu mënati na am waaye Faris muy Perse yi ay at lañ ca toll juróom-ñeenti at lañ ca teg Romain yi xeex ak ñoom ba gañe leen gañe ba nanguwaat suuf sa ak lu ko ëpp loolu ak lu mel ni tey ci misaal bi keroog bi ñu def sulxul Xudaybiya nga xam ne dañ leen a génne moom dañoo bëggoon a dem Màkka aji walla umra ji ñu tere leen nanguwuñ ñu dugg màkk suñu borom wàcce aaya wax ne laqad sadaqa allahu rasulahu ruya bil xaq la tadxulunna al masjid al xaraama inchaa allahu aminina muxalliqiina ruusakum wa muqassirin wax ne dangeen dugg màkk te ba mu koy wax booba kenn xel jëpp ne nit jullit ñi mën nañoo dugg màkk waaye ñaari at lañ ca teg jullit ñi dugg màkk def fat ko màkk na ko alxuraan waxe woon loolu lu bëree bare bare léeg ci jëmm la la koy def ne jëmm ji kat nangam moo koy dal jëmm ji dund ci misaal Abu Lahab bi nga xam ne bàyyi la bu ndaw ci yonante bi sallallahu alayhi boroom wàcc na ci moom aaya aw saa sax wax ne sa yes laa naaran daata lahab tabbat yada abi lahabi wa tabb maa agna anhu maaluhu wa maa kasab sa yes laa naaran daata lahab faw mu dugg sawar loolu day wane ne kon ci kéefar lay dee Abu Lahab mënoon naa bëgg bëgg a dëng dëngee yonante bi ba far tuub te bu tuuboon alxuraan tebbi ko waaye gis nga ci dundam mujjul tuub ba ni mu faatoo loolu lu bare bari la def na ko itam ci Walid ibn Mughira wax ne sa uslihi saqar te taxul mu mën a tuub ci dundam te ñoom bëggoon nañoo wedd yonante bi ak ak euh, tebbi li alxuraan di wax loolu guddal naa ci waaye lu am solo la ci misaal alxuraan képp koo xam ni dégg nga làkk wii di luxal arabiya mos dara ci balaaxal arabiya boo koy jàng da nga yëg ne lii du waxi nit nit du waxe nii nit suuf da ko tënk ak jamono ak ak place ak temps yooyu da ko tënk espace bi mu ne da ko tënk ba buy wax yooyu da ci feeñ environnement bi mu ne da ciy feeñ day day feeñ ci ay waxam fi ne nit bu bindee da nga xam mooy kan wala fi sax dañuy wax ne ku wax feeñ fi ne mënoo roy nit roy roy roy roy nit ci bindiin wala uslubam ba copier ko ba buñ ko bind boo bindee yéen ñaar duñ leen xàmmee faw ñu xàmmee rek ndax sa xalaat rek ni ngay xalaatee sa xam-xam ak fi sa xel toll yooyu yëpp day feeñ ci say wax doomu aadama loolu moo tax léeg-léeg am na ci doomu aadama ñoo xam ne dañuy woote ne ñooy yàlla ku mel ne na waaye gis nga ba waxee yaa ayyuhal malaw maa alimtu lakum min ilaahin gayri waaye fa awqid li yaa haamaanu ala tiini fajcal li sarxa laalli attaliu ila ilaahi muusa maanaam moom nee na mooy yàlla man kese maa yàlla amu amu leen beneen yàlla bu may man ba noppi ne haamaan tabaxal ma fii benn eh, tabax boo xam ne ci lay yéeg bu ma mën a yéeg bu mën a xool ci asamaan si loo xam dinaa séen yàlla yi muusa yi laalli mooy xëy na xëy na ma gis ko yow wóorul la xam nga kooku doomu aadama gi feeñ na ci biir wax bi gis nga bi muy wax ak waa waa ba danay wax ne yaa qawmi alaysa lii mulku misra man maa yàlla ndax gis nga misra gépp maa ko yilif moom misra jàpp na ne fi la adduna yam alxuraan nag ni muy waxee dafa wuuteeg loolu da yëg ne kii wax nii du nit léeg-léeg nga dégg mu wax ne fa wa rabbika la naxsurannahum wa shayatina summa la nuxdirannahum xawla jahannama jusiya summa la nanzianna min kulli shiatin ayuhum ashaddu ala arrahmani otiya summa la naxnu aclamu billadina hum awli biha suliya wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya summa nunajji alladina ittaqaw wa nadaru zalimina fiha jasiya waxin woowu alxot nit nit du wax loolu leneen nga nekk mu ne innani ana allah laa ilaha illa ana faabudni wa aqimi salaata li dikri inna saata aatiyatu nakaadu ufiha li tujzi kullu nafsin bima tasaa fala yasuddannaka anha man laa yuminu biha wattaba yu deme noonu loolu nit wax loolu inna nahnu nuxyi wa numiitu wa ilayna almasir yowma tashaqqaqu lardu anhum siraan dalika xasrun alayna yasir nahnu a'lamu bima ma anta alayhim bi jabbaar fa dakkir bil qur'aani man yaxaafu wa'iidi waxin tekki ndax day aaje tafsir ak sarxo bu ko dégg xam dara ci wax da nga yëg lii du doomu aadama mooy wax doomu fit dëgër fit gu am na yoo xam ni aw fitam ëgg ci wala bu ko fitam àggee itam mënu ko mënu koo wax nabbi ibaadiya anniya ana al-gafuur rahim waa anna adaabi huwa al adaabu lali wa ma xalaqtu l jinna wal insa illa li ñoom bu ñuy yilif sax wala ñu wax ne ñooy yàlla ci nit ñi lañ ko yemale waaye wax ne jinne nit ñëpp maa leen sàkk te li tax ma sàkk leen ñu jaamu ma leen ne itam man damay jéggale waaye nag dinaa duma waxin yu dem noonu kullu nafsin daa'iqatul mawt te yow mii doomu aadama bu fekkee da ngay woote doomu yaay yàlla fi ne da kon alxuraan du waxi nit waxi suñ borom la tabaaraka wa taala yéemu lool lépp li ne ci biir kaamil bi nag ca suñ borom la bàyyi ko lépp tawqifi la saar bu mas a wàcc walla aaya bu mas a wàcc yónnante bi day wax ne nañ ko dugal ci bërëb sàngam nañ ci joxe misaal lii Seydina Ousmane ibn Abil As nekk li ne bis damaa toog ci rasulullahi sallallahu alayhi wa